الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من أرسل إلى الأحمر والأسود سيدنا ومولانا محمد إمام الله المهدي المنتظر وعلى آله وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وكيل yi ñu leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi sunu xalifa yal ko saa sàmm aar ko di teg sunu responsable moral Chérif Mbaye Laye yal na ko borom bi taawu sàmm ko may ko fan bu gudd ko ànd ak teraanga te li nga xam ne nan na ko ci diine ji mu mottali ko ci barkeb alxuraanu karim waaye duñu fàtte yeesal sunu ñaan ci ki nga xam ni moonu gindi leeralal nu yoon yi ba man cee Abdullah di ñaan borom bi subhanahu wa taala yokki leeram te tas bi ci barke di nuyu waa leen ziar mu mel ni dama bett ba sëriñ bay moom léeg-léeg mu bett la bett boo xam ni doo xam looy def woona ma démb ni ma dama waroon a waxtaan ci Chérif Abdallah tey waa ne xam naa ni damay am ngaan te comme jàmp na bëggoon naa ga am loo ci barkeeloo rek taalibi de moom amul sañ-sañu sëriñam jox ko ndigal mu gànt yaakaar naa wax ci Chérif Abdallah ci ñun ñi nga xam ne xamuñu ko day diis te liñ fekk ci moom mën naa ni bariwul ñi ko xam dëgg-dëgg ñu wax la kan mooy Chérif Abdallah problème la waxuma ak nit ñi nga xam ne fekke wul ci lu bari foofu la ñuy duggee mu sàkkoon ñu am lu mu càmbar tuuti rek ci dundu Chérif Abdallah mu mel ni pour jëriñu ci Chérif Abdallah dafa am loo xam ni war nañ koo xam te pour nga xam ko ci sunu jotaayu tey bi dañ koy tënk ci ñaari question rek benn bi moom la ñuy ubbee beneen bi moom la ñuy tëjee. question bi ñuy ubbee mooy kan mooy Chérif Abdoulaye. bu ñu waxee kan mooy Chérif Abdoulaye ñi toog ci penc bi yépp ku ci nekk bu ñu la joxee micro bi. di nga am loo ci wax lu bokkut sa morom la wax Cheikh Abdoulaye la mu ne su koo xuus ba daj question boobu yam ay réponse yu bare bare bare bare kon mu question boobu nga xam ne moom la ñuy ubbee kan mooy Cherif Abdallah day laaj tontu yu bari buñ fi toogoon ba at mi di wër réponse yooyu du kon daa am lu ci mën a cof rek mënuñu ko dajal ñu xam ni Cherif Abdallah mooy kan koo xam ni maamam da annoncé avant muy teew moo tax damay jël way jàmbur féetale ko ko di ko sëb tuura jiitu sa taxawaay ci dund bi deefu la jaawale keneen ci géew bi koo koy Chérif Abdoulaye ci lu wér parce que moo jiitu ak juddoom mu mel ni Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam dafa am ñetti wax yu ñu wax ci moom sama cuuj bët la bawal xam nan cuuj lan wax la xam naa ni dina am bis di tàmbal loolu baneen bi muy drapeau bi foron ci biir ndéem koy xare boo fa taxawee pour gagner bu demee ba deux hmm? mu ni Abdoulaye Mathi Abdoulaye Abdoulaye Mathi bis bu ñëwee ba tolloo bunt ne sama woote siiw rek te kooku dinañ ko fekk ci mission bi kon kooku ku nu annoncé la avant moo ñëw kan moo ko amoon annoncé muy xayru xalqillah sallallahu alayhi wa sallam annonce boobu dafa am lu mu làmbool moo tax ni mu mel rek la war a mel bi mu gënee àdduna ñu tuddee ko Abdullah Seydina Isa tuddee ko jaamu bi yàlla tur woowu moom la passé dundam ba mu jeex ba bi muy jógee ci àdduna abdan lillah la mu am garaatu سأغرم لوح يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي قلنا خمني كروو بير لا موميت تاي مو خامني سما بروم بو فاي دلوات غراني نو ام في ييب في لاي ديس benn rek moom ngay yóbbaale mooy abdullah in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahman abda kooku tur woowu rek la ñuy delloowaat ci borom bi subhanahu wa taala kon sëriñ Ablaay dundam bépp ci jaamu yàlla la ko passé te dina am lu ci raw mu màggee yaroo ci loxo yi waaye juróom di Seydina Isa ruhullah am ñett mu def ci moom def ci moom xam-xam def ci moom diine def ci moom jikko yooyu te ñett yooyu bu ko boole rek mën a taxawu àdduna kan moo ko def ci moom koo xam ni dañ ni yeneen bi tam yàlla la muy Isa ibnu Maryam kon sëñ Ablaye li mu am gisuma ku ko am yeneen bi yàlla moo ko yaral ko ko bi ci njëkk muy xam-xam bi mu géeju ci bari woon xam-xam la sëñ Ablaye bi mu tollee ci xam-xam uti ba dajal muy déglu ci benn histoire bi muy jàng mu ngi nekkoon ginnaaw ko saas sëriñ bi ko doon jàngal dem na ba jàpp ni moom mën na koo libéré yabal ko ni ko mën ngaa dellu bi mu ñëwee si naan saa xool ko ni ko Ablaye lu xew mu ni ko sëriñ bi ma wax ñëw mu ko takkatal si bagage te dellu jour boobu nee na ci ngoon gi moo ko nettali ci ngoon gi la takkaat bagage am delluwaat ci daara koo koy sëñ Ablaye loolu moo tax waykat kii jigéen rek yëmbal di wax naan ku doomu soxna musfana ku doomu soxna musfana dem nga fanaan fala mu fanaan ko lekk sa jara ko war a xam rek sëñ Ablaye dajal na ko xam na ko ci la koy firndeel sëñ Aïssa yónni na ko ngaa xam ni ko boo demee ba Tiwaawan am na sa waajur bu fa nekk sëriñ Babacar na nga ko jàpp nuyu ñëw ba Tiwaawan laajte kër ma Babacar ñu yóbbu ko mu ñëw fëgg ñu ni ko mu ñëw taxaw ma Babacar sëriñ Babacar si ni ko kooku mu ko abdullah mu ni ko jóge fan mu ni ko saw jant kàmbare kuy ya. so waay mu ni ko sina isa ene na sëñ babacar ni mu tëddee woon dafa jóg bi ne ko sina isa mu sa waay dafa jóg ko limu mu njëkk a testé ci moom ndax kii am na lu mu xam mu ko sa àll ba fu mu toog ci alxuraan mu ni ko ji wàcc na jeexal na gis nga formation bi sëñ Ablaye Dia sa àll ba fu ni ko wàcc naa alxuraan teewaaw te moom dëkk xam-xam la mu commencé koo testé fu mu ko toq ci alxuraan sëñ Ablaye teera fu ko toq mu teera fu ko toq mu teera loolu rek sëñ Cheikh Tidiane Sy Al ak sëñ Mansour ñu ci biir dëkk bi di jàng jël seen bras yóbbu leen ba ci ñoom ñu leen kii seen nawle ci diine kon kooku bu ni jàngul woon foofu dina am lu fa xew kon loolu firnde la ci xam-xam bi nga xam ne mais pour nga xam dëgg dëgg dëgg Serigne Ablaye jarul ngay sori il faut nga branché wu ci koo xam ni moo ko xam parce moo ko tànnal boppam. di ko way ma muy Chérif Mouhamadou Laye Diène mënoo xam Serigne Ablaye te doo càmbar ay wayam mënta ne ko fi way ci moom ngay niite moo tax ba mu jógee ni ko Abdoulaye di far yan bu rëy ba ca moom Abdullah di far kenn la ci diine ji la ci man ci diine ji Abdullah di far waaye nag li sama problème mooy yan bu rëy ba ca baayam ñëpp xam na ni la deux fois démb ak tey mu ne yan bu rëy ba ca bàyyi moom la jël ba pare di jawaat yan bi nag moom xam naa ni pour ñu càmbar ko te ak sëñ bi parce que yan boo xam ne yanu nubu wala yanu yonent la yaakaar naa ne cër bi fii la ci malika pour yan boobu parce que mu lay dire dani malikaay ay xadi na yandi ko ga yanam malikaay ngeen jagoo xam doo ka saay ni moo gën démb ak tey Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam yan fii la ko yenni ko mu annoncé ki war a jël yan boobu tekki ko tas ko pour ñu xam yan bi lu mu mu wommat ko ba mu ñëw dëkk si fii ci Malika kon Malika ay toolu Malika sëriñ Ablaye bi mu xamee ni responsabilité boobu moo ko war a gàddu ba mu demee armée ba ñëw dem armée boobu am na lu ci xew parce waajalee muy waaj war a dem par les tours Ablaye Wade président Ablaye Wade ànd magam ñëw yëg ni suñu Ablaye day dem armée mu ànd ak magam ñëw ni moom daa bëgg a ànd ak sëñ dem armée Sina Issa leen tàll leen loxo leen ñu préparé leen mu laaj Ablaye Wade yow lan nga bëgg soo màggee mu ni ko dama bëgg màgg ut xam-xam boo mën a servir réew mi. ñu sëñ Ablaye yow mun ko man dama bëgg a màgg am kattan tasaare woote sëñ Nabi Muhammad mu tàllal mu ëpp ñu 2000 2001 Cheikh Abdoulaye toog dem. ne yitteem bépp nekkul ci dara lu dul mission bi koy xaar mooy tasaare boo leen Seydina bi moom alayhi salaatu salaam. Seydina Isa teel koo testé parce koo xam dañ laa jox mission nga juddoo ko Seydina Isa mu jógee àdduna Seydina Isa war a dem lii di boromam te bala moo dem dénkaane bu ko Seydina Limaamu joxoon la ci moom mu testé am benn taalibe bi Limaamu alayhi salaatu wa salaam mu nekk Louga du Louga doomi Ablaye Ba bëgg ay jàng Louga booba sëñ Ablaye mu ngi am entre vingt ans vingt et un ans Seydina Issa ne testé leen mag ñi fi newoon ak tafsir ñi fi nekkoon bari xam-xam ku nekk nit ñi Ablaye Thiaw mi dañuy yebal ba Louga borom xam-xam yi fan nekk pour mu fay dafi ñaan Seydina Issa ni testé leen ko rek mu ànd ak mag ñu dem Louga gi ne ñuy jàng xam-xam façon xam-xam bu ne génne na ko ba am na fa benn naa doon wax ni kii li muy wax bu xam-xam bu mu jàng dañ ko koo sol question yi di daw mu jàng ba quatre heures du matin question yi joxe yëpp mu tontu ci même période waa mbéy ngeen ni ñoom dañoo soxla di kon yoonam def na ci ñetti jàng avant moo dellu si waat Cambérène góor gi ma ni ko mbéy moom ni dellu Dakar te dañ ko ay jàng mbéy ngeen foofu naan sëñ Ablaye wala jamono joojo fas la ko jox ci la war a jugee jëm bay ngeen dem fa toj foofu mag ña ni doyul faaw dañuy def ay jàng faneen muy jàng jigéen kon gis na ñetti jàng boo xam ne koy testé mu tegale ñetti jàng ci même période def ko loolu ñu bisiwaat tàmbale Ousseynou Issa bi ñëwee mu laaj leen ah bu ngeen def ak Abdoulaye Diagne euh, bi day moom macha allah mu leen ah sëñ Abdoulaye mu ngoogu moom la maamam tuddoon kooku ay Chérif Abdoulaye mu xam ne nag mbir mi commencé na li mu njëkk a def mooy créer ay daayira pour nga xam intellect intellectuel si Serigne Abdoulaye fan la toll ak tëralin

muy groupement central nga xam ni responsable daayira bu nekk dina daje ko di waxtaan ci seen programme yi lay déroulé kooku mooy Chérif Abdoulaye daw ci diine ji foofu la commencé ba cinquante ans juróom fukki at mu nekk ci loolu ñun nag da am trente ans rek mel ni ñu si yor ñaari jongama rek suñu Ablaye Daw moom cinquante ans fu mu taxaw ni limaamu mooy Rasulullah loolu lépp rek nga ñëw ci xidma bi mu def ci ay waajuram ak i magam xidma bu am solo mursalu mooy signalé bi moo rëdd bi jot na toppe gi mu toppe nga xam ni jamono ji loolu moom moo ñu sonal cër yi moo ñu sonal dina am ay cër moom ba am cër koo xam ne bi am cër bi doogu est-ce que bu ñëwee cër na ko sonal. mu topp Seydina Mohamed vingt-deux ans nekk porte-parole topp Baye Seydi Thiaw seize ans nekk porte-parole topp Mame Rane quatorze ans nekk. porte-parole di 52 ans yoo xam ne da léegi da boo xam ni da nekk sa boo xam ne jiit la un an deux ans looy bëgg fépp pour jiitu ko moom nag 52 ans la topp loolu moo tax li mu am mu am ko. jal nga daan jala jalaw ku man ti toog nga dawal. moom lan la xëy darajaal Baye Abdoulaye jërëjëf. jërëjëf comme waxtu yi dab nañu ñu xool relation yi nga xam ni des na ko ci waxtaan islamiya sàmm ko diini bi nga xam ni dundal na ko mën naa ni kenn rek moo ko réussir ci réew mi ci Sénégal muy Chérif Abdoulaye fexe ba ràbbale jullit ñëpp doon benn te loolu. benn leçon la boo xam ne bàyyi na ko àdduna bàyyi na ko réew mi buñ ko jariñoowee ala kulli xaal stabilité mooy am ci réew mooy fexe ba mooy fexe ba jullit ñëpp kenn ku nekk nangul sa morom parce que bu amee rek musiba dëkk yu bari li ko daal loola Seigneur Daara moom loolu da ko réussir parce que alquran la mënu ko wax wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu innamal mu'minuna ikhwa faslihu bayna na si sëriñ sëriñ Abdoulaye foofu alquran bu doon dox la parce que lépp alquran da koy jël pratiquer ko nit ñi di ko dundee mu réussir mu ko doom tàndam rek ngay ñëw course boo mën di yor nga yëg sa bopp ci tàndam moom réussir dem ku ci sama sama sama ngay wax waaye si ñëw daal la sax ba wax sama am video vidéo daw muy wax naan waa nit jàngee ko def naa ko kii du nit mu ma xam nit mbir mi dama sama maam nan seeni maam te la mbir waaye nag bu jéemoo te lijjanti mbiru kaneen doo ca mën a wax kon yàlla na ko yàlla fajal loolu Seydina Limaam alayhi salaatu wa salaam dana koo jàngal ci baabu nasiha loolu moo tax sëñ Ablaye ci question bu njëkk bi yii yëpp ñu dama naan li ma doon dox la te dinañ ci ñëw incha allah ah bu ma ko Mor Sall maye. <laughs> musal rek nah, tak tak tak continuer 48 ans 48 màggal yoo xam ne Abdoulaye fekk na ko daf koy parole wax sëñ Abdoulaye daana ko sëñ Abdoulaye daana ko wax boo ubbiwul màggal du am kooku mooy sëriñ Abdoulaye relation yi mu amoon ak waa Tiwaawan tamit xam nañ ko wax nañ ko léegi mu nekkoon ku ubbiwu tamit ku yaatu gën ba loolu moom moo par exemple ba bi ñëw moom mu jël responsabilité bi dem teeru bari loolu ko ŋàññi mais xam na moom li mu yor lan la mission bi yor xam na ko sa mission Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam Seydina Limaamu ñëpp la woo mais loolu laa mën wax yéemewul parce que euh, waaye juróom Seydina Issa 1946 fi président France di ñëw bokk na si ne ko teeru ji woon kon boobu mooy ndono gi nga xam ne doon na ci waaye juróom mu mel ni ci jàmm liñ ci doon événement naa ne ñu fi amee Mauritanie ak Sénégal ay xelal mais ñu ko doon problème bu rëy xam ñaari réew moo na cee ànd tàkk ba mu nitee ba métti si Abdoulaye moo génn rajo RTS moo def déclaration moo ko jëkk a def xeer ni teg foofu mooy sëñ Abdoulaye kaña boo def na fay jàng ak la fa xew lépp mu jéggale ginnaaw bi ndax lan yan bu rëy ba ca Limaamu aleyhi salaatu wa salaam dal na ko gore tooñ dañ ko tooñ muy ndox ndax dafa doon Seydina Limaamu jikkoom ju ne sa baay wax ne wax na Seydina Limaamu ni ko xam naa ci sëy jikko ñetti téeméer mu jeex am nga kiraama sa mbaax rëy na leen doom rafet jikko noonu bu yaa xam-xam bu dul jeexalaay yaatu taar tabe maanaam am diine am leer lépp la sëy Ablaay gën li nu koy firndeel da ngay dem moom lay ndiir li doon ne woon na ca maamam tabe xol bu yàq. dafa jikko bari xam-xam melaw yonente. loolu mooy sëñ am na jikko yëpp la. la la la la doon ci maamam kon bi ko sëñ naa li maamu di annoncé looloo taxoon di nekk ci moom la ko transmettre pour man man koo doxe loolu moo tax tabe googu. ma laa nii wax yàgg na dégg fi daayira Malika yi bu musaana def seen ziar den daan woo lu ngeen joxe lu ngeen indi muy temps génne ci alalam def ci leen dem ne ànd nag sëñ bi dem Thiès ci gox bu wax kër Mamaram ak Youssouf benn paa mag bi sëñ Abdoulaye mënuñu fay ñu ni ko lu tax ni bu musaana ñëw Yoff wala Cambérène ziara Paris li mu leen daan jox ci alal pour seen paas kenn xamul nu mu toll. sëñ Ablaye mosu ñu ko mënu ko fay kon kooku mooy sëñ Ablaye alalam lépp ci diine ji la ko dépensé. kan moo ni sëñ Ablaye moom bii bii la fa bàyyi compte bii la fi bàyyi nangami million fi nekk te mu nekk porte parole bi 52 ans nga xam ni poste boobu bu fa nekk lu ne mën nga ko am bàyyiwu fi dara. sëriñ Mbaye loolu la nga wax ne xanaa bu fekkente ne na fi dara la fi li tax ma ni li doon dox la mu ma lay ndiir da koo wax dañu maam li maamu laay dañuy woon Abdoulaye nga jël la ci yéen leen ko. jël ci may laayoo yàgga dal gi bi daa daan ay façon daan tey sël ci bay laay kon am nga ndam am nga ndam am nga ndam Shirif Abdullah da nga koo war di way Mawlaay nee na mu koy way ba keroog muy dee mu ne Abdoulaye dama koy way ba keroog ba may dee Abdoulaye dama koy way ba keroog ba may dee ak njabootu Baay Laay pour mu wàcce suñu kàddu foofu Moussa la mu may xool rek dina jeexal naa bu yàgg question bi ma wax moom la ñuy tëjee comme Oumou Laye day da way ba trop ñuy dee. waaye ba trop ñuy dee dañ way. way wi ndax jël sa xalima di bind ci moom la wala leneen la. mu bàyyi fi tool boo xam ni gàncax gi mu ngi jóg vert na rafet ndax tool boobu dañ koy bàyyi mu booy wala dañ koy suuxat mu meññ kooku kuy dem mën nga ko yóbbaale xalaat ci nga dellu ci wax ji mu waxoon bi muy toog 24 juin 2001 ni wax jéem na jëfa des asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaan ñu ci tudd lépp pour yàlla yàlla na ko yàlla na topp ci doroya ci xabru ci romb seen abdillahi ak ñoom fa nekkal ñëpp waaye yaag maam yàlla jullit ñëpp def ko muy fa ñu xaajal suñu fi desali di tëral ci yàlla di tëral ci bopp yoon bi yal yàlla sàmm ko ak njabootu bàyyi laay yëpp xam naa waxtu wi taxaw na ñu ñaan rek te indi woon aaj yàlla yàlla saafara na yàlla xam na lépp yàlla defar lépp daf gën ci ñun macha allah seen libaas waxtaan bi am na solo sëñ Abdoulaye wax ci moom daanaka mën ngaa continuer ko guddi te point yi nga neex parce que moom moo toll noonu ni lay sal kabar kal ayaan wal kaboor ak kal bañeen maanaam li ñu fànn kenn ko jeex si nga xam ne daal pour joxoon micro rek noonu laa wax si moom parce que noonu la toll kon yàlla na yàlla fayal ni ko yàlla na yàlla taas rek moo ci solo yàlla mën na ko ko def xam naa ni am ñoo xam ne. ajuma bi ñëw bu ci topp danañ tëj waxtaan bi sëriñ Ablaye di ko defee këram boobu nag ñun ñëpp xam na ni bu mag la te ay sëtam ak xadara beeg dawaay yëpp ñooy ànd def ku delloo ko Omar maanaam defal ko maanaam. seetaan su fa amoon loolu si kaw géej bi la woon bii nag da nga koy ràndoo nag ñun ñëpp mooy li nga mag ndaw ñëpp kenn des ñu dem ci ëttam rendre ko hommage ñaanal ko waxtaan ak moom ñu ciy liggéey commission culturelle ak ñeneen ñi ñëpp ñu bàyyi ko xel dafa am ñu ñuy jox wérd war na ñëw teg ñu jaare ci tëjaale euh, ngoone laa ñu gaje gaaram mu féete mu ne laay gajal faat laay gajal faat laay gajal mu ne laay gajal ñu jox leen wird wird tamit nag mooy carte d'identité mooy passeport yi mooy carte d'identité bi laayeen bu moom xëy na nga gaaw xool noo ko délijee Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira Walhamdulillah kasira Subhanallah, ilah ilah Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira Walhamdulillah jàngal leen Fatiha yàlla na yàlla barkeel ko ngeen góorgóorlu ca wird bi moom kenn mënu ko jeexal ne yaay xool nañ ca mën a nañ ci yéene tànk rek waaye li ma wér ca wér nit a ngi dox su sori di wuti ku ko ñaanal wala ami soxla wala ami du ko nangam te nii ñu ko roq te xamul ni ñaanal moom jëm ni ko wér ñaanal leen moom sëñ laay nangoo nañ moom mu ni am soxla wér da wér day waxtu soxla te samp ci la daan te soxla ku am faj na kon nag boo amee jamaa sa poos di def ñaar di def di def mille franc ñaar dafa am la kon nag mu bàyyi defee góorgóorlu si bu baax a baax ci lu seen tontu laay kàttan mu leen fàtte bu paree ñu jàng def na ci may laay génn wàllam ci soxla yaakaar bi bismillah kon ñu fàttali leen turu maam Gaal bi di ñëw lenn ndooy moo ko aye yaakaaru